jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nu yotti nañ leen am kontaan ak mbegte comme niñ koy defee saa su ne mbokk yi nag ki ma toogal kenn du ko présenté mooy sampion bu mag bi wulli wulli waat tey nag moom lañ seet si ngir waxtaan ak moom am na kombaam boo xamante ni ñu ngi doon dégg diggante mag diiru jaan le 8 mars jam production tëggoon ko fële ci arène national ba adversaire ba deliiru jaan jékki-jékki combat bi des une semaine ñu dégg ko fële ci États-Unis dinañ ci waxtaan ak wulli waxtaan ak moom lépp loo xamante ne day jëmale làmb kanam wulli maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sëñ Basir maa ngi lay nuyu di nuyu waa wasaare làmb yëpp nuyu euh, sëñ Basiru di nuyu Sénégal di sant yàlla di santaat yàlla di santaat yàlla di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sama wasila muy sëñ Modou xabaan Mbacké di nuyu Kara Mbodj sama xarit international Kara Mbodj borom Qatar di nuyu séeram Naar Mbodj di nuyu magam Ablaye Mbooj di nuyu yaayam bu baax a baax a baax di nuyu soxnaam Faatu Mbay di nuyu Abdoulaye May Sawali Jon di nuyu Baye Sall Baye Sall Saalu Seen Jamil Sam maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama soxna muy Salik Jon di nuyu Seynabou na bu juuf maa ngi koy nuyu eh, Seynabou Diouf di nuyu ñoom ñett maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax. nuyu Sénégal di nuyu Sénégal ñëpp. wulli li ma bëggoon ñu waxtaan. sa combat yaag Lirou Diane da ngeen a bëri woon bi am la ca xew. ñu jékki-jékki indi ko le 8 mars bis boo xamante ni bisu jigéen ñi la nga di ci waaj di ci bëre ak liiru Diane ñu dem ba combat bi des une semaine euh, dégg ni liiru Diane dem na États-Unis noo yëgee loolu ak ak ak ak bi nga ko yëgee nu la def. waaw jërëjëf loolu wax naa si lu bari. Lirou jaan vraiment bëggatuma sax di wax ay waxam bu dee gën na bay na na fi réewam won ko ginnaaw dem yal na ko yàlla may lu mu wut foofu vraiment. am nañu combat combat bi des cinq jours mu dagg bee dem loolu duma ci waxati lu bari mais nag li ma ci xaw ñaaw ñaaru rek mooy ni mu ko defee quoi defin bi moo xaw a ñaaw parce que euh, man tréw ma ko mu tukki ñun ñëp ñëpp mais xam nga nit booy loolu def bu doo ko wax moom moom taxaw ne damay bëre ak wulli damay kay jox ko avance jox ma avance voilà Jamaïcain jox ma avance ne ko kaa jël sa avance mu ne ko teel ma avance bi dinaa bëri ak wuli kon bu demee noonu xëy rek dem tagul kenn vraiment dama sax bëgg di waxaat daal waaw na koy na dem man maa ngi toog fii di liggéey di entraîner. mais depuis boobu après nga ma dégg nga nga wax ci mooy loolu léegi sa diggante ak promoteur bi wàllu woowu fu ngeen ci toll ci avance bi. waa waaw Jamaïcain booy baax la sax suma ko sama rakk la sama xarit la sama doomu ndey la di gërëm aussi Lamine Samba. Hmm. Lamine Samba aussi sama xarit la sama grand la dama jël sa léegi consultant TFM. Hmm. Lamine Samba ku baax maa ngi koy gërëm Jamaïcain amul problème bi bi ñu waxee dina ma yow. koo bëgg ko laa jox xoolal koo bëgg ma jox la ko li neexul xoolal ko bëgg ma jox la ko loolu ki la ko mënal da nga koy sant gërëm ko kon jamay keem maa ngi koy gërëm di ko sant gërëm Lamine sam bu baax a baax a baax di gërëm aji magat soxnaam ak ma ma maa ngi dégg ñuy bëgg sa sa combat mais ñett adversaire yi ma la bëgg a tuddal su ma ko tuddee kan nga ci gën a bëgg. muy euh, nu mu tuddati Tyson gin gi neew muy muy aadama euh, Diouf muy Batika kan nga ci gën a bëgg ñoom ñetti ñoom. waa Tyson gin gi neew waa Mbour ñoo bokk suñu waa sama ko ak moom muy euh, Mandumbe borom gëm-gëm production. Mandumbe mu ngi Mbour quoi di xale bu ndax aussi di di góorgóorlu. di profité aussi di nuyuwaale Abdoulaat Sarr Abdoulaat Sarr mooy daas ministre de sports. jili ku baax la ko foofu foofu tama parce que Abdoulaat Sarr day day xele nekk daas ministre des di liggéey mbuur di def lu baax mbuur woo mm, Mandumbe ne ko lépp luy jëmale mbuur kanam man maa ngi ci wuta demal seeti wulli bu nangoo nga jox ko tey soon ngin gi neew parce que loolu combat Dakar la mais indi ko Mbour pour waa Mbour bëgg. di wax nag aussi waa mbuur ñëpp nañu jàppale Abdoulaye laa le futur maire de Mbour moom laa koy wooye parce que de jàppale Mbour di gërëm aussi mandumbe bu baax a baax a baax ak gëm-gëm production yëpp mais te yor ngeen ngeen ginnaaw bi ma ko bëgg a jox aussi nit nit ku ne am nga staff. bi ma waxee sama staff. ñu ne ma man bu nu sañoon doo doo ak moom. man nangu woon naa ba jubóog man dumbe mais aso nit nit ku ne aussi da nga am sa staff te it sa sa staff bu bu bu la waxee aussi da ngay dégg li ñu la wax. mais loolu fan lañ ko teg maanaam dañoo. dañoo xeeb Tyson gin gi neew wala dañoo jàpp ni moo la doole. non Tyson gin gi neew parce que géej na am combat gars yi ne ma bu nu sañoon. nga bëre Adama Diouf wala nga bëre Moustapha Guèye 2 ñooñu parce que actuellement yow li nga def ci làmb ji macha allah nga te làmb ji waroo bëre teg n'importe mu bëre aussi. mais wul Moustapha wax nga dëgg làmb ju neex a ngi noonu. waaw Moustapha Guèye baax na Adama Diouf baax na di wax aussi jamay kenn moom moom doon na wax Moustapha Guèye 2 même même man dumbe sax doon na wax Adama Diouf. pare naa pour pour bëre parce que man ba dañu ma kenn mais aussi sa staff lu ñuy wax aussi da ngeen koy nangul quoi mais pare naa fii mu ne mbir yëpp parce que vraiment jiil sensé waat naa lépp sensé staff bi sensé lu bëree bëree bëree bëri négatif sama entraînement yu mitee mitee mitee mitee mitee mitee mitee mitee waaw. wala nga nekk ci say entraînement yu méttee méttee te wolof def ne mbaam gàtt na loolu waaye ci jur gi la bokk. nga dégg coowal bi nga xamante ni dox na ci diggante arbitre yi ak ak CNG de lutte bi euh, ñu bañ aj ci ay euh, Sitor nga xamante ni moom moo jiite woon arbitre yi ñu ñu ñu ñu raja ko ñu maanaam ñu dàq ko euh, Malick Ngom ñu ñu aj ko ñii ñu aj leen cinq ans ñii deux ans yëg ko ak bi nga ko yëgee nan la la def. yëg naa ko nag jiile vraiment xam nga fii lu xam ci lam ñu yëg ko hmm. mais loolu moom da wax assu CNG bi hmm. vraiment vraiment. d'accorduma ak seen décision. ñu baal ma nag. ay sama préférence ah, Alioune Sarr di lancer aussi ministre de sports parce que nag carrément jili ministre des sports mu ngi liggéey. ku ko nangu mu ngi liggéey. ku ko bañ mu ngi liggéey. ñëpp xam nañ ne mu ngi liggéey. Matar ba mu ngi fee soo travail bien mu ngi liggéey sport bi. di nuyu aussi Mamadou ñaar ñaa daas ministre des sports sama xarit. Mamadou Ngom ñaa Fatick Seri Abab Kane mam Mamadou Ngom ñaa mooy daas ministre ministre des sports moom it mu ngi liggéey soxnaam aussi di di sama xarit muy Abab Kane madame Ngom ñaa daas mais CNC bi il faut que waxtaan parce que diili ku ne am nga droit kaas sa mais vraiment bés jëlee arbitre dàq la nii man ànduma ci wax dëgg saa bu ànduma ci CNC nag ñoo fi nekkal làmb mais itam du itam li lépp lu ñu wax rek nga ne waaw ànduma ci ñu xëy rek dàq ay arbitre parce que arbitre mooy làmb fan yëpp boo xoolee arbitre yi arbitre ci lam yëpp combat yi baaxul jël de am ñu ne jël amul jël am ñu ne jël du am ñu ne jël am na te it lam arbitre la ak mbër ba arbitre yi di ñaxtu di bëri di ñaxtu vraiment war nañoo xoolaat seen bopp aussi comprends nga parce que Alioune Sarr def na octobre lay jeexal mais ñuy wax rek ministre des sports aussi man sama xarit la Ba parce que mu ngi liggéey lamb ji lamb ji mu sport bi mais nag Matar aussi bu ko waa lamb yàqal liggéeyam parce que mu ngi liggéey sport man Matar Ba moom moom lay défendre mu wax ak CNG bi lii waru woon am. wa illaa bu octobre jeexee nu jël keneen dénk ko CNG. wa illaa ñu wax nu nu wuutal suñu njiit CNG. parce que vraiment lii moom c'est trop. parce que bu ñu ba ba tax arbitre yi doon arbitre lam yëpp léegi kam ma fi arbitre yi wax dëgg aussi waxtaan wax dëgg te bokk bu CNG daxee arbitre yëpp léegi lam arbitre ko yor comprends nga. Matar Ba na jël ay responsabilité am bu mandat seen bi jeexee mu bañ koo renouveler wutal ñu keneen ku bees ne xele aussi na xele comprendre nga ñu ne xele ñu liggéeyal suñu lam parce que lam ji mu ngi yàqu am ah. diili lam ji mu ngi yàqu bu ñu bu ba dàq arbitre lam jaa ngi yàqu aj fi ay mbër mbër yoo xamante ni ku kaas fi ay mbër mu lam jàng yàqu ministre de sports il faut parents seen responsabilité ci lamb ji parce que lamb ji yow yaay patron bi te yaa ngi liggéey sa liggéey bu la ko kenn yàqal jëla say responsabilité octobre surtout bu octobre jeexee nga woo mbër yëpp ñu wut beneen njiit nag te it bëggunu nag njiit ay mbër man maa koy wax Tyson dégg naa ko si. Hmm. man d' accord ma benn mbër yoo CNG. di Tyson Bombardier jeeg Tyson nag Yékini nag ñëpp d' accord si kenn yoo CNG. du booy kay du xaarim gajaga d' accord ma benn mbër jiite seen lu tax nga ni aussi am na mbër yoo xam ne. ñu ngi wax na Alioune Sarr dem pour ba ko yor CNG hmm. d' accord ma man man man wuli. Hmm. comprends nga benn mbër mënu yor CNG nañu waxante dëgg. parce mbër bu yor CNG CNG bis sax la tane CNG nañ ko jox une personne neutre. ba pare bëgg lam xam lam. Mm-hmm. keroog dégg naa ko Kéba muy wax kante xam naa ko mais gis naa ko gis. Mm-hmm. mais dégg naa ko Kéba Kanté ci lutte bi nga baal ma. Mm-hmm. mu wax mais man li mu wax dégg naa ko xam naa ne kii xam na lam. te neutre na parce que kebaa bi mbir yëpp la mën a defante. lam loolu la bëgg. ku mën a yor CNC nag neutre mais amut ban mbër boo xam ne mun a yor CNC xam na aussi Sénégal li ko yàq tout toog mbër bu fi naan Alioune Sarr demal itam ñun d'accord yu ban mbër nekk si yor CNC man mbër yëpp sama xel lañu mais mbër bu yor CNC day gën a yàqu rek parce que sa egsi nga yoroon parce que am na mbër yoo xam ne parce que tey am na mbër yu mag yoo xam ne neexawuñu seen biir boo ko mbër bi yoree concurrence yi bareek nagam sangam. amut da koo xeexoon bi muy bëreeg moom mosu bëgg dem na ba nekk fii aj na ko. léegi na ko waaw. d'accord ma benn mbër remplacer mm-hmm. Alioune Sarr. buy dem na ko un personne neutre remplacer. Mm-hmm. un personne digne ku xam lam ku bëgg ci lam parce que sëñ Bamba. Kéba Kanté man dégg naa ko mu wax miin naa ko tuuti nii mais xam naa ne. c'est une personne neutre ba ba ngi def lamb parce que lamb fi mu toll dañ koo jox xale aussi bu xam lamb ji kooku moom maa ngi lancé appel solennellement la ministre des sports mu jël ay responsabilités ci CNC bi bu fi ñu jogee bu ma ko jox benn mbër nag na na seeti amateurs yi parce que amateurs ci lam la bokk amateurs yi nag ci Sénégal ak yi ci bitim réew ci lam ji la bokk ba bëri mu kisam moomu lam tey bu mbër bëree te ñëwut léegi promoteur yi doon na teg lam nañu woo amateur yi ñoom ñi nga xam ne ñooy deg seen billet pour seetaan ñu ñu laaj leen ku ñu bëgg woo promoteur yi laaj leen mais bëri yi aussi na Alioune Sarr dem na Alioune Sarr dem nga bëgg a toog d'accordu ma loolu. mais wulli am na leneen loo xamante ni jot naa xew ndax ku ci nekk xamoon na ne diggante soq ak gàmmu gay euh, dimanche la woon lañ ko waroon bëre. far yàlla dogal euh, feebar bi nga xamante ni mooy corona coronavirus dugg ci réew mi dugg ci àdduna bépp bépp réew moo xam ba tax waral euh, président lancé appel dakkal lépp loo xamante ni euh, ay manifestation la xeetum ndaje ba làmb bokk na ci noo ko yëgee ak bi nga ko yëgee nu mu la def. di sant yàlla di d'accord cent pour cent ak la le président. Hmm. parce que. fagaru moo gën faju Macky Sall li mu def so parfaitement raison d'accord naa ci di gërëm nag sëñ Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général kul murit mu ànd ak le président Macky Sall ci décision bi. mu ne Kazu bi nag ko ñëpp magal nu ñaan sëñ Faalu Mbàkke nu wacce kaamil ñaan feebar bi jóge ci réew mi di gërëm laayeen yi ànd nañ ci di gërëm waa kër Seydi Alaaji Malick Si waa Tiwaawoon ñoo jëkk def réaction ñu annulé seen siyaare sénéral bi mm. kon kilifa diine yi ñu ngeen di gërëm nuy mm. ñaan nag nan nu gën a ñaanal parce que réew mi réewum Serigne Touba Mbakke la réew maam El Hadj la réew maam Laay la réew Mbaye Ñas la mm. nañ ci def ñaan parce que ñaan lu mu mënul amul feebar bi yàlla moo ko fi andi to Serigne Touba juboo na yàlla ay doomam juboo na yàlla ay setam juboo yàlla ma mam ma laaj ma rek noonu nanu wase kaamil ñaan ci yàlla feebar bi yàlla saa faa ñu ko nu mu gën a gaawe loolu ñaan rek a topp fi mu toll mais feebar bi bu kenn ne amul feebar bi am na te Macky Sall li mu def aussi pour sensibiliser la parce que tey ndaje bu amee kenn am ko fa mën naa wàll kii parce que tey ñun waa Europe ni ëpp ay matuwaay foofu si ñoo ñoo ëpp motukaay waa Italie feebar bi ni mu mel Italie ëpp naa mel fii te ñoo ñooñu ëpp ay hôpital gën ñoo xarañ ñoo maandu yarama ya baal tubaab ñooñu gën a maandu euh, ngeen ma parce que daj yi am fii du am foofu kon feebar bi ni mu mel Italie yàlla bu ma ko mel fii te nanu def ñaan ànd ak Macky Sall mu wax c'est important ndaje yi parce que ndaje bu amee kenn mën nag fay bu ñëpp ñu bëri am ko fa kas soget bee ngi ñëw na ñëpp toog foo toog jàng kaamir ñaanal sëriñ Falu Mbakke ñaan yàlla suñu borom feebar bi jóge ci réew mi ci barke sëñ Falu Mbakke rek moo sa jili juróom-ñaari sëñ Falu Mbakke mën na lu ne lu mënul amul te am nañu chance am nañu chance hmm. feebar bi tombeek magalam hmm. kon nañ ci profité ñaan ci yàlla ci hmm. barke sëñ Fallou Mbacké coronavirus dem parce que baaxut coronavirus baaxut aussi Sénégalais yi nañu béy statut yi di kaf di ko café di ko caaxaane di feebar dafa sérieux doo ko caaxaan doo comédien feebar bi bu ko kenn comédie bu ko kenn caaxaane nanu ci def ay ñaan pour mu bañ law parce que feebar bi du comédie ah, du du kaaf feebar bu sérieux la ku gis siin ku gis sax léegi Espagne partout dans le monde crise bi am léegi bu ko kenn caaxaane nanu def ay ñaan dafa sérieux ah, c'est feebar bu très sérieux nanu def ay ñaan ci feebar bi jili hmm. feebar bi dafa sérieux hmm. bu ñu demee ba tey waa Makka ab annulé aj bi comprendre waa waa France bàyyi nag kenn amatul benn élève bu mu demati école kon feebar bi saison feebar sérieux na ko gars yi jàppelu sérieux te bañ ko caaxaane bañ ko comédien bañ ko tike feebar sérieux la nanu ñaan ci yàlla mi ko fi andi mu yóbbul ñu ko loolu laa ci xam coronavirus baaxut coronavirus baaxut coronavirus baaxut. wulli boo waxaan Sénégal gépp dañuy kontaan dañuy ree mais boo gisee bi ngay wax ci feebar bi sérieux bi nga ci àndal nga xam ni kon yow xam nga ni bu baax a baax a baax feebar bi du feebar boo xam ne ay caaxaan la caaxaan lalu ko. du ko comédien du ko caaxaane. parce que feebar buy rëy. te ku xool li am Italie. di ma ma ma mas. sawu ñëpp parce que man samay fan club doon na ci ci Europe bi waa itali Espagne dama leen di yërëm ku xool Italie fee mu toll amatu liggéeya tunu Espagne liggéeya tunu vraiment lii dafa sérieux parce que man ñi ma bëgg ñu bëri ci diaspora bi te bu waa diaspora bi ñëpp toogee liggéeya tunu loolu crise mondiale la neexuma parce que samay fan si fa liggéeya tunu ndax coronavirus bi damay ñaan ci yàlla coronavirus bi dem Italie dem fépp ci réew mi mu nekk yan ak fee la jeexal parce que lii fefee sérieux la bi billaay walaay tara dafa sérieux Lamine boo xoolee diaspora bi damay bëgg a jooy waa Italie Espagne Maroc Angleterre États-Unis partout dans le monde waa France partout dans le monde feebar baa ngi fay def lu dara jarut kon coronavirus bi yal na ko yàlla saafara Sénégal aussi nu def ñu yokk ñaan yi alhamdulilah loolu laa doon wax tey di gërëm ñëpp di la sant yow di la gërëm di di gërëmaat nit ñu baax ñi di santaat nit ñu baax ñi di gërëmaat comme ni ma ko waxee woon Kara Mbodj seeri mbay Mbaye Fatou Mbaye di gërëm Mamadou Ngom ñaa daas bu mag boobu nekk ministre des sports sama xarit sama doomu ndey Mamadou ñaa mu ngi liggéey Seri Awa awa awa kan gërëm Seynabou Diouf xam na boppam Seynabou Diouf ñañaar xam na boppam Roqee xam na boppam ah. ñi ni say lan di gërëm sama soxna. Sali Jon di gërëm Ndey Joob Touba Ndey Joob Touba maa koy gërëm bu baax di gërëm Sénégal gépp di sant ñëpp di gërëm ñëpp alhamdulilah rabbi alamin jër ngeen jëf mbokk yi seetaan Wëlli dégg ngeen li nga xamante ni moom la waxoon wax na ci wax yoo xamante ne wax bu am solo la ndax wolof daf ne mbaam gàtt na lool waaye ci julli gi la ci jur gi la bokk licence bi Modou Lo di dagg Balla Gaye di ko dagg moom la Wëlli mii di dagg licence dix mille francs kese la kon Wëlli bu waxee ci CNG bi war na cee wax. boo waxee ci sport bi war na cee wax ndax mbër la boo xamante ni bu bëree Sénégal gépp dañuy kontaan ci moom kon mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jaajëf Wouly. di gërëm ñëpp waaw vraiment comme ni ma ko waxee woon. Hmm. wasaare lam. Hmm. lam jàngi wasaaroo. Hmm. ci réew meek ci bitim réew. di leen gërëm euh, Abdou Abdou Lat Sarr Daas mu mu mu mu nga liggéey de maam Boy Diawo mu ngi liggéey mi ministre Matar Ba mu ngi liggéey mm-hmm. mais bu ko ko benn doomu aadama yàqal